aouzu billahi mina rhinocéros rajim yàlla dafay bind doomu aadama yi am nu mu leen binde def leen ay seytaane ndax ak ay façon pour ñu yàq senegal fii nag tey li ñu fi boole tey ñu koy waxtaanee monsieur président ma ñëw ci rapport bi mooy genre rhinocéros moo indi lii yëpp bëgg xaalis bëgg tur bëgg mbooloo te amoo nit moo nu indi ci situation bii mu nekk tey monsieur président ma am lu ma waxoon ma ne nañu moytu ci biir rapport bi Ablaye Diagne que je félicite au nañu moytu di raamal suñu moroomu nawle tukkulóor sax am na lum ci wax maccudo rek maccu doo lay àndal ndax jàpp naa ni lii xew tey ki ko indi ba tax ñu ñëw fii ñu ngi koy sant bu baax ndax bu deful woon ngoree di ga mu def ji koy maccu la ja mu def ji koy traître ja mu def kon du ñu am lumière ba war a jàpp ni assemblée nationale war naa interpeller ak juge man nag ma waxoon ne ci rapport bi waxaat ko démb fii ma taxaw que l'Assemblée nationale est souveraine. La justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et nous sommes les représentants du peuple sénégalais. Nous sommes élus au suffrage universel. amul benn doomu aadama bu mën a wax ne du ñu la woo fii ñu taxaw laaj la nga tontu ma leeralaat ma ne fii ñu taxaw woo nañ fi ku ne damay reprendre rek les paroles textuellement les paroles de fameux leader que j'admire beaucoup quand il disait que le Conseil constitutionnel est corrompu le Conseil constitutionnel maa ngi ciy doog def sama xel maa ngi doog a gëm ni wax na dëgg metti woon na ci suñu xol yi bi ñu daggee li si Bakar metti woon na ci suñu xol yi loolu ñu ànd xeex chance su buuxuma micro am nañ chance su tey la ma waxoon fii ñu dugalal ma ko ci rapport bi ma wax ne dama ne conseil constitutionnel am na ci ñoo xam ne jubuñu ils sont corrompus ils sont en connivence avec certains leaders de parti ils sont en connivence avec quelqu'un qui les a donné des sous loolu danañ ko ko delloo fii ci feuille bi ma leeral ni lawoon a garaa la séeréer di wax la ñu doon kaas 2019 ñu nuy daggal ay liste di ñu dugalal di ñu génneel moo dellu si waat yàllaa ko leeral jaarale ko ci cadre parti démocratie bi di sant nag ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp ba heure bi du affaire xaritoo de monsieur le président affaire leeral la bu fi kenn jóg naan wëy wëy ñi dañoo contre seen candidat kenn contrewul kenn man bu doon man Karim Meïssa Wade lañ ko wax damay bëgg mu leer man bu doon Karim lañ ne moo nekk en connivence avec un certain euh, France d'âge de de de ce pays là pour liquider beneen candidat damay bëgg mu leer donc nous vous félicitons de votre clairvoyance ak li ngeen bëgg ñoo ngi seen ginnaaw incha allah rabbi ba yëfi leer day leer day leer Karim bëggul lëndëm bokk par force Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le ministre en charge des institutions, honorables députés, chers collègues, mbokku Sénégal bu fekkonte ni képp ku ñu àtte lu la neexul dëkk bi tàkk kon bis bu ne dëkk bi tàkk bu fekkonte dañu war a am commission yuy enquête ci lépp lu réew doxul ci réew mi jàpp naa ni taxawal dañu commission buy enquête ci assemblée nationale bi bu yàgg ndax wax dëgg yàlla askanu Sénégal def naa ni des nañu wekk assemblée nationale boo xam ne saa yu ne ay xuloo ay xeex ak ay saaga waaye comme kenn mënuñu enquête ñun ñu ne ñu nañu enquête ji juge man yàgg naa wax ci mbirum injustice bi nga xam ne naufrage bi nga xam ne moom la justice Sénégal dëkkee waaye bu ñu seetloo bu conseil constitutionnel atte woon leneen lu muy atte ci mbir yi fi xew bu boobaa la ñu war a ma ne bu fekkente ni conseil constitutionnel Sénégal ci réclamation yi nga xam ne teg nañ ko fi muy yi ñu teg bu àtte woon leneen lu wuuteeg li mu àtte bu boobaa lañu ñu war a dut baaraam conseil constitutionnel parce que le droit a été dit sur la réclamation que j'ai portée le droit a été dit contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir À partir de ce moment, les députés, les députés du Sénégal, à partir de ce moment, l'Assemblée nationale du Sénégal, bi nga xam ne moom moo voté woon moom moo voté woon la loi sur le parrainage ici confier au Conseil constitutionnel le contrôle du parrainage mënuñu taxaw tey di naan dañuy weddi le droit qu'on a confié au conseil constitutionnel de contrôler les parrainages erreur bi mu ngi jóge ba ngeen demee assise dialogue national ngeen dem dialogue national nangu lépp jàpp ni tout va rouler comme sur de l'or de l'or vous avez fait face à la justice de ce pays oui la justice a été dite et c'est C'est une honte. C'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Sinon, di sosalee nit comme ni ñu may comme ni ñu yàgg a sosalee gor bu taxaw di défendre Sénégal loo tax jaaxal na ma tey. bu fekkee tamit da ngeen bëgg waa Benno yéen lay waxal yàgg taxaw ni ceci ne m'ébranle en aucune façon pas et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays vous avez condamné le Mali Vous avez condamné le Burkina Faso. Vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. La caravane, du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'en prend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va ira. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal, Monsieur le Président, vous avez constaté que j'étais victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Gibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Et j'espère, Monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport contre sur le cas Aminia Goudi. Merci vous ferez la même célérité pour faire le rapport Merci. des agresseurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.